yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ku sawuntuñu kaw dagg sa wëppalaw jeex l'observateur na nañu loolee mu am ca jaw be ubbil yéenekaay dëkk ba nekkee rek ba ñu tegee loxo Ousmane Sonko dëkk bi yëngu nit di manifester manifester law ba waa jaw be ca la ñu taaloon mairie ba taaloon duwaañ ba taaloon it gendarmerie bu dëkk ba gendarmerie bu jaw be boobee ñu taaloon caxat-caxatee ko tax na ba ak nekk di tegu der di songu askan wi di leen sàcc ak di leen cambriolé ñi ñu gën a singili ci fi nag l'observateur nee nañu ñoo di commerçant yi ci dëkk ba ca manifester yooyu indi lii lépp ñi nga xam ne ñooy ñaari responsable yi parti Pastef yi ñu tegoon loxo ci diwaanu Touba andi leen Ndakaaru di Mame Dame Lo coordonnateur jeunesse patriote ak Bada Ndiaye président commission d'organisation Pastef Touba ñoo ngi nittali ci source wa ni ñu dundee jàpp gi ñu leen jàppoon ke njëkke ca wax ja moo di Mame Dame Lo nee keroog ba leen alkaati di jël si wanuñu leen seen carte professionnelle wanuñu leen it benn mandat de perquisition dañoo moom la ñu ko jàppee moom ci garde à fukki fan ak benn téye leen ci kaso bi fukki fan ak ñett tey li ñu leen doon toppee ak doon leen ko tuumal xamuñu ci dara Vox Populi xëy ñu xamal ne chef protocole bu Ousmane Sonko di Jibi Gueye Ndiaye convoqué nañu ko ca division investigation criminelle mu di ca dikk tey ji ci àllarba ji ca la war a wuy ji manifesté yewoon ci buntu kër Ousmane Sonko keroog altine juróom-ñetti fan ci weeru mars bokk na ci li ko alkaati division investigation ba war cee wax ak moom ñoom waa parti Pastef li ñu gis ci yëf yi leen di jéem a xoxotal te ñuy def waroon na lool ak li leen xalifa général des mourides Mbàkke Basiru santoon département d'état bu Amérique Les Échos nee nañu rapport bi ñuy def at mu nekk jëmale ko ci tolluwaayu droit de l'homme ci àdduna bi ci seen rapport bu mujj bi wax nañu ci ne àq ak yelleefu doomu mu di droit de l'homme lu sooxe la ci réewum Sénégal nekkinu nit ñi ci kaso yi sajj xef yi ñuy sajj xef góor jigéen ak lesbiennes yi ak ñi bëgg a ñu leen koy aaye ba di leen ci jaay doole Les Échos nee nañu yii mooy yi américains yi dajaleel Sénégal ba tax ñu épinglé ko ci seen rapport bi beneenub rapport ci la Sénégal rapport la bu tukkee ci jàngat ak gëstu boo xam ne docteur Ndeye def na ko Ndeye Amy Ndiaye docteur professeur la ci wàllu droit international pénal di jàngaleet ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru jàngat bi mi ngi jëm ci fitna lante gi ñuy nemmeeku ci diggante góor ak jigéen étude ba nee na bu ñu jëlee ñi nga xam ne ëppal nañu juróom fukki at góor ñi ciy dund fitna ñoo ëpp jigéen ñi mag ñiy dorogewu di personne troisième âge réew mi quotidien nee nañu foofeet am na rapport buy wane neen ñi am lu ëpp juróom benn fukki ak juróom ak lu teg ñi ci tàmm dorogewu kenn mënu tàggale ak dorog journal li quotidien soppi tur yi tuddee ko train des infrastructures moo xëy amee xët mu njëkk Walf Quotidien yëral journal bi ci waxtaan bi mu def ak ñoom wax na ci mairie bu Ndar ba ko dénk wax na ci commande publique bi wax na ci autoroute à bi ak njëgam ba waxaale ci démarrage bu train express régional bi fa la ne laata fanweeri fan ak benn ci weeru décembre 2021 TER mu di train express national bi dana tàmbalee daw ci réew mi réewum Sénégal ay football katam di équipe nationale bi seen max bi ñu doon football démb ca kees ak waa Eswatini yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko Sud Quotidien nañu max ba ci 1-1 ci la mujj te nag gaynde Sénégal yi dañoo mooy ne gàcce la ñu naroon a génne ci stade ba ne bi ñuy égaliser fekk na max ba jeex ba ñu toll ci temps additionnel yi suur soit nañu nañu ko santé arbitre bi ndax entraîneur bi Aliou Cissé ne fàng gu réer biir gis ne match su démb bi yëkkati ko noon Sénégal jële ca yeddaange lisi ko nañu la ñu ca jële romb na yeddaange gàcce la ñu ca jële